ak mënoon a dimbali nit ñi te bëgg yàlla man bés bu ma demee yàlla na yéex ba yàlla suñu borom génne ma àddina li ma bëgg a bàyyi ci xelu nit ñi ne ak amoon diine te mënoon a dimbali nit ñi jërëjëf waa Sénégal xalif général des comédiens moom da c'est trop pour moi waaw euh, ndongo laa ci biir euh, comédien yi malgré ba ma nekkee tout tànk ba léegi maa ngi koy def euh, comme xam nga mbir moom boo ci yàggee yàgg ci rek ñu yàgg la cee gis yéen lañ ñun la ñu tuddee fi mu toll nii paa yi mais yàgg naa ci am naa ci tuuti expérience xam naa ci li ma ci war a def ak li ma ci warul def mais man sama tur tëgg maa ngi tudd maam Cheikhou Guèye maa ngi dëkk dëkk bu ñu naan Thiès quartier bu ñu naan Jaxaw falaa juddoo falaa yoroo falaa màggee sama maam bi jur sama yaay bu jigéen moo ma yar euh, ak suma ay grand frère ak suma ay nijaay sama nijaay ak sama maam maa ngi leen di ñaanal yàlla xaare leen àjjana te yërëm leen sama nijaay ak sama yi fa des ak suma grand frère yi suma cousin yi maa ngi leen di ñaanal yàlla gudd fan ak weer. li ma gën a tiital ci àddina bi ñu nekk nii mensonge yi jàpp nit ki yàq ko xamoo ko filmer nit ki génn ko pour weer ko waxal nit ki lu la wóorul sosol nit ki lu la wóorul yàq na nit ki liggéey àddina pendant de années nga yàq ko ci benn minute ci internet walla ci téléphone xamoo li nga causé yàq nga gàncaxu gu lëmb nga yàq moom jabaram doomam fameem askanam bii juddu lépp lépp lépp lépp lépp aujourd'hui bi may ñëw ci yow xam nga ni bi may dugg si dama xaw a jaxasoo parce que da dégg ay boroomi ay kilifa yoo xam ni walla ay boroomi nit yoo xam ni dañuy dem fekk seen jabar muy sëy ak yeneen i nit ay kilifa yoo xam ne dañuy bett seen jabar ñuy sëy ay yeneen i nit ñu leen di filmer génne film yi am jëkkër di sëy ak ñeneen di njaaloo ak ñeneen xam nga euh, góor jigéen yi nekk ci àddina bi euh, bëgg ñu imposer seen bopp ñoom ñi ngi ci li ñu gëm war ci toog bëgg ñu ñun fekk xoolal ce qu'on a fait à Idrissa Gana Gueye ce fe a fait à Idrissa Gana Gueye mais euh, xamoonte wuñu profondément parce que man waa équipe nationale xaw ma leen je dem ay stade ak yooyu mais c'est des c'est des gosses que je respecte quoi parce que ñu am yar lañu ñu am teggin lañu ñu bëgg seen réew lañu xoolal Idrissa Gana Gueye ni mu mel ah, ñu bëgg sa non di ñu supporter par la force bàyyi li nga nekk. supporter li ñu nekk yow li nga nekk man waxuma ci toppatoowuma ko yënduwuma ko xooluma ko nga ne la man man li ma nekk man sol ko walla supporter ko c'est vraiment désolant c'est c'est vraiment désolant léegi da nga dañ nañu ba nga xam ni kenn xamatul kii et ku tourner rek manière bu ndaw boo def rek ñun la ci ñooñu nga bokk walla ci ñooñu nga am waaw nañ ñu bàyyi ci sunu jàmm daal bàyyi ñu xam ne ñun xamuñu loolu ñun tamit ñu reconsidérer waat suñu bopp xam ne yàqante bi weerante bi sosalante bi metti na te mi ngi yàq askan te xam nga euh, damay wax waa Ciné People euh, vidéo bi xëy na dina dem fu nekk ci àddina man àddina dama ko évaluer benn guddi yàlla suñu borom may defal ma ma am insomnie ma tëdd après je me ma ni bon waaw nit ñi man li may daw di wut nii yëpp Ah, di am ay stress te oto bii laa commander damaa jaay bii changé bii sama kër bi bi ma koy tabax defal ma fii dressing rafet nekkoon naa ci monde boobu ah man tamit def naa yooyu loo ngi sox sama grand frère bi tabaxal ma tojal ma fii defal ma fii fii salle à manger bi nii laa bëgg mu mel non oto bii dama koy jaay damay jënd 4x4 bu gën a mag kërëb kërëb soxna yi yi sama yi non ma ne bon man bu ma moomoon Dakar ba Tamba. par exemple ma moom dakaar ba Tamba banque yi fi nekk ak immeuble yi fi nekk ak oto yi fi nekk te rafet yëpp léegi nag après bu ma moomoon lépp nag léegi après après ba ma ma évaluer ma ne mais lépp ci dee lay mujj ah moo moomoon lii moo moomoon lii moo moomoon lii après ñu suul la mais après kon affaire bi la lay jëriñ. est-ce que du nii après man ma dem focus ci yàlla sunu borom toog jàpp suma liggéey jàpp suma ñaamu tey jaamu yàlla lu bari moo gën di daw parce que kenn mënul daw lépp kenn mënul daw lépp macha allah bon loolu daal waaw man daal sama àdduna noonu laa ko jàppe daal macha allah waaw. bu fekkee ne <laughs> damay choisir pour judduwaat euh, question boo xam ni la <laughs> bëgguma bëgguma judduwaat déjà. dama la koy wax bu ma demoon bay judduwaat cheikhu laa bëgg a nekk li ma doon nii laa bëgg a doon parce que lii la ma yàlla teg lii la ma yàlla destiné te rëccu ma ko doon awma ma benn regret dans ma vie waaw je suis content et bien là où je suis et que et sant yàlla. cause boo nga xam ni euh, pare naa pour joxe ci suma àdduna man ñaar rek la moom laay wax suma doom am ah. moom laay wax suma doom. benn ñett yi sax benn bi mooy wutloowuma la alal xam-xam laa la wutloo benn jaamul yàlla ak ak foo mën a ne nga feebar nga ñàkk nga am ko situation fu mu la fekk jullil nga jaamu yàlla parce que man loolu duma ci jóg bul fen bul fen man boo dee fen bugguma la soskat fenkat bugguma leen yàlla bu ma yàlla tombalee ak ñoom mën na ma rey man quand tu dis la vérité quand tu es quand boo bëggee yàlla bëgg yonent bi boo boo diina ji nga nekk boo ko fonkee ngay wax dëgg man mën naa dem ak yow ci lu ne ñu nekk ci lu nekk jeex na li ci des euh, ci yëfi yàlla la yàlla la nekk waxal dëgg jaamul yàlla rek bon histoire d'amour nag man yàlla dimbali may ma ci parce que jamono ji nga xam ni kenn xamuma war daan naa amantu ay euh, gel fii de gauche à euh, mais nag man euh, attends aw woon dama daan am am naa ñaari yoon ñu ma bëggoon ñoo xam ni dañ leen a maye <laughs> ma bëgg leen ñu maye leen ah oui parce que boobu. parce que boobu mooy loolu euh, bon xam nga jigéen màggam dafa gaaw ah yow yaa ngi ko mën a mag mais fi mu lay dépassé mënoo koo takk te moom war na sëy c'est des choses qui sa comprend léegi maintenant après bon voilà diggante may kii après ma def tuuti formation vendeur en pharmacie après ci laa ñëw si dugg Dakar ma am soxna amaat soxna je vis bien xam nga si sama côté amour je suis avec mes deux superbes femmes je sors pas du ma baali duma dem restaurant du ma dem du ma wër quoi ah timis sama kër la may fekk lu ma dox dox dox xanaa ma am ay yenn rendez-vous yu extrêmes yi euh, soxlawu ma dem fenn aw ma fréquentation aw ma dara je suis à la maison avec ma femme et mon enfant ak sama rakku jabar ak benn sœuram quand je suis chez ma deuxième femme je suis là-bas avec ma femme on est bien je suis devant ma télé lekk naan seetaan télé toog jàpp suma ñaambur aw ma fréquentation aw ma dara ñaari fréquentation yi ma am Aziz il est à Thiès Cheikh chez lui moom tamit noonu la jàppee jàpp guddaay moom ñu toog jàpp suñu ñaambur lu ñu liggéey yàlla jox ñu ñu dundee. wëruma ñàkkuma fayda wër di ñaan wër di kii fii non non non non je bien li ma yàlla may maa ngi ciy dund toog parce que man noonu laa bëggee dundee ko toog ci sama ngor toog ci sama fulla ak suma fayda voilà mais ci côté mbëggeel moom macha allah je touche bois maa ngi toog ci suma famille suma ay xarit lañu quoi waaw j'ai aussi un ami qui s'appelle Samba Kende Bonavita vraiment ki ma fréquente à chaque fois te maag moom yàgg nañu trop parce que yaayam moo ma ko dénkoon et c'est c'est c'est c'est mon vraiment à part ça aussi j'ai des j'ai des j'ai des personnes derrière yoo xam ni ñi ngi nekk bitim réew ay nit mu kilifa yu baax ñoo xam ni il sont dans l'ombre di xool li may def di surveiller li may def mën naa ci cité ay nit ñu mel ni ay Alioune Niang mi ngi Washington ay euh, Mohamed Gaye mi ngi Canada moo mel groupe Extra yi ñu may suivre quoi di xool samay évolution di xool li may def di xool li may kii li may dugg ak li may génn ça va je tranquille quoi alhamdulilah rabbil alamin je ne me plains pas sant yàlla man pour man euh, xaalis euh, toppatoo sama njaboot la may jëriñ dimbali nit ñi man xam nga yéen waa Sénégal dama leen wax man Cheikhou Gueye du ma dencal sama bopp xaalis man du ma dencal sama bopp xaalis man tant que nit ñaa ngi kontaan sama famille di kontaan sama doom di kontaan léegi je suis content tant que je fais des choses pour les pour les personnes tant que fais pour les choses pour ma famille je suis content laa mel aussi j'ai un ami bu ñuy wax euh, Jojo Cheikh Ndiaye allo boy foo nekk ma ne ko dafa am lu may topp topp mu ni ma billaahi wóor na ma ni ci ci ci problème mu ñi nga nekk di dox ma ne ko waaw parce que lii ak lii mu xàqataay parce que suma papa noonu la meloon quoi suma papa noonu la suma papa daan nañ ma nettali ni ma c'était un militaire da daan daw huit kilos li may wax ni militaire yi bu ñu ko déggee huit kilos mooy sac dos yi ñuy def ay affaire ba mu diis nga daw huit kilomètres huit kilos lourd quoi ay kilomètres ngay daw sama papa daan na daw ba war a arrivé delluwaat xool ñi jël ndaare ak ñi nepp ci gannaaw mu leen di booster à ce que ñu ñu arrivé sa papa daf ñu daan wax ni wutal li leen lu ngeen amal seen bopp ngeen bàyyi ma ma toppatoo jaamu yàlla yi ma toppatoo ñeneen ñi toppatoo leen seen bopp ngeen góorgóorlu ngeen bàyyi ma ma toppatoo ñenn ñi nga xam ni amuñu te yàlla boole ma ak ñoom wallahi lazim ma nga ca ma nga ma nga ca àllaaxira ma ngi ci dëgg ci dynamique boobu rek laa nekk mënumaa matal ñëpp nag mënumaa satisfaire parce que léeg-léeg nit wax ma loo xam ne du ma ko def duma ko mën a def ça m'arrive mais li ci ëpp yàlla daf may dimbali que ni bu nit ñi di ñëw dina fekk ma am lu ma leen jox ci suma poos walla ñu ma leen booleel ñu rek la ñoo la alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin il m'arrive sax tabaski ñëw. man un benn jour benn jour su ma jabar moo ma rappelé que ni ñun amuñu xar man ak moom te ñi ma war a jox xar jox naa leen ba ci guddi gi suma benn xarit bu ñuy wax Sidi Kanté maa ngi koy nuyu bu baax sama nit ku baax la téléphone bu ma yor moo ma ko jox moo ma woo ni ma ngand ma ne ko ah, mun ma foo nekk ma ne ko maa ngi buntu kër ga toog mun ma xar mi laa gis jël si woo ko mën ko sam ban xar mën ma ngan da yow tamit tabaski bu jot maa ngi lay jox xar gi fàtte woon naa ko sax ndekete yàlla mi ngi ma dencal mu wàcceel ma ngandam xar boo xam ne rusoon naa ko sax tabaski damay ñaan yàlla rek à fois mu dimbalee ma bu ma nit ñi di soxlaa di ko fi fekk parce que man boo fekk ko fekkoo ko fi daf may def damay rus mais mi nga xam ni mooy moo mën lépp am ay magasin ku yor moo la jox sax am na ñoo xam ne bàyyi na leen moom moo xam lu joxu leen te moom moo xam lan la ci jublu kon man mënuma satisfaire ñëpp alhamdulilah rabbil am na ay moment sama plus grand regret tey bu ma la koy wax am na ay moment où ci sama coobare bopp ma mooy yàlla ay moment ci sama coobare bopp ko xam nga nit mën ngay mooy yàlla te doo ko tey doo ko xam nga tooñ yàlla te doo ko xam am na ay moment où ma tooñ yàlla te tey ko daf ma metti si c'était du ma ko def jamais damay toll fu ma toll di ci jéggalu yàlla sunu borom ni ko maa ngi lay jéggalu ci rëcc rëcc yi nga xam ni defoon naa ko te toppoon suma naf su bakkan loolu rek laay regretté mais à part sama vie li ma ci yàlla teg nii sama vie professionnelle sant naa ko ci parce que am naa ñoo xam ne bu ñu jotoon ci li ma am wallahi fi may wax ak yow nii dañuy nelaw ba yàndoor lu waaye am na nga ko téye te sant ko yàlla te xam ne am nga koo ko tane kon man aw ma réglé dans ma vie mais lu ma tooñ yàlla ci suma gannaaw lay regretté. ak mënoon a dimbali nit ñi te bëgg yàlla man bés bu ma demee yàlla na yéex ba yàlla suñu borom génne ma àddina li ma bëgg a bàyyi ci xelu nit ñi ne ak amoon diine te mënoon a dimbali nit ñi bëgg naa bàyyi image yu ak bëggoon jaamu yàlla ak mënoon a dimbali nit ñi te daanu dugg mukk ci lu yoonam nekkul jigu est xam nga man du ma dugg lu ci sama yoon nekkul. interview bii waa Séné People ngeen may defal boo ma laajoon loo xam ne sama yoon nekku ci du ci wax dama naan la sama directement dinañ ñi kii dafa ñàkk dama naan la sama yoon nekku ci parce que du ma waxu man man yére jàmbur sax du ko xool moo tax yenn saa nit ñi di jaawale ni dama dama am nu ma mel te sa maam moo ma yore loolu bul xool lu sa yoon nekkul bul wax lu sa yoon nekkul bul dugg lu sa yoon nekkul. ni ma Cheikhu ma ne ko naa mu ni ma Guèye àddina lii la li nga moom li sa yoon nekkul ak li nga bokk ma ne ko maam loolu waaw mu ni ma déglul ma li nga moom jëlal def ci lu neex te ci lor kenn yaa ko ko dëgg la maam mu ni ma Cheikhu li sa yoon nekkul mu naa ah, mu ni ma bul ci dugg dañ lay gàcceel ma ne ko maam dëgg la mu ni ma li nga bokk ñi ci war a jot ñépp nañ ci jot doo am gàcce mukk ni ko dëgg la saa yu ma yeewoo ci loolu lay dox dañ may wax ni artiste comédien bu toll ni yow ah autorité yi nekk ci dëkk bi nga xam leen artistes yi dañuy xëy seen taal seen oto dem ci bureau autorité yi dem ci kër autorité yi Cheikh yow doo dem fenn kete man damay bañ ko ma jéppi ku la may ñaari yoon jéppi la kër goo sone ñaari yoonu jéppi la te man damaa am nu ma mel mën naa xaritoog yow sax te doo xam suma soxla je le dem kër nit ñi dem bureau nit ñi nangam sàngam tëdd tëdd bëgguma ko léegi nag nit lu muy wax day wax lu leer xaw ma fan la ma yàlla di jëmale ci àddina waaye yàlla bu ma yàlla defal may wër kër nit ñi ak bureau nit ñi di leen tagg ak a kañ ak wax lu nekkul ci ñoom pour ñu jox ma dara je préfère avoir trois mille francs ou mille francs su ma njaboot suum bi ci naan ma xam ne lii ci dignité laa ko am que ma dem di ko kéemaande di ko ñaan looloo tax bëriwuma xaalis maa ngi sant yàlla nag parce que lu ma bu ma yeewoo li ma bëgg a faj dama koy faj incha allah allah ci sama liggéey. maa yàlla j'ai mes te foofu di nga ma may ma di remercier Youssou Ndour Ndiaga Bouba ak sa famille parce que de jëlee nañ ma fu sori sincèrement waa groupe Futurs Médias embauché ma daggal ma salaire te ki la daggal salaire këpp na sa potu yalwaan nit dafay gore nit dafay sincère sincèrement ak beneen boîte boo xam ne xëy na tam ma wax ko nga ne publicité la muy waa Sonatel formidable ma ci lu bëri professionnalisé ma ci lu bëri parce que surtout foofu si tu n'es pas professionnel doo fa mën a liggéey may liggéey ak ñoom depuis 2005 ba léegi j'ai mes salaires alhamdulilah maa ngi dund ci sama sama jàmm parfois aussi nga soxla plus soxla nangam kërëb kërëb mais lépp toogal ci sa ngor rek. man daal man daal man daal bëgg naa bëgg naa nit ku toog ci ngorom rawatina artiste waaw toog sa ngor ki la yéene man waxuma ni ay nit duñ ma yéene de gis nga ñi ma nii nekk États-Unis ak ay kii dañuy jékki-jékki il dañ may envoyé xaalis kenn ki dafa ni ma bu ma la envoyé te xaalis nga delloo ma ko wala nga nga nga am loo ciy wax ma dagg suma diggante ak yow mais yow Cheikhou ni nga mel ni lan la yow Cheikhou lan la muy Aliou Niang ay Mouhamed Gaye sama xarit yii ma lay wax ay Sidi Kanté dama am ay ñooñu ko xam ni xam nañ ñi man duma ma def yooyu mais ils sont là pour moi quoi ay Cheikh Ndiaye ay Aziz mais dañu ne ah booy benn affaire la nga fi de nañ leen ko séddoo kenn day tukki ci ñun marché am fi mais keneen ki tukki dañ koy dencal xaalisam même bu géewul ñun loolu la ñu am bokk ku amul ni ah booy man tel problème tel problème ñu ne ok benn affaire la nga fi jox leen Aziz mu régler problème am wala benn affaire la fi jox leen Cheikh mu régler problème am wala benn affaire la fi jox leen Cheikh Ndiaye mu problème am ñeneen ñu toog xaar loolu la ñu xam lu bu kenn amee dara dañuy bataaye pour keneen ki am ko mais li ci des nag yàlla am na ko jikko daal. damaa jàpp daal comme que affaire bi xam naa nag lii bu ma deeyee yàlla na yéex dinañ ko tegaat ni ça neex parler de la xam naa ko <laughs> mais comme que affaire bi daal ci dee lay mujj jigo daal yu bëri daal multiplier naa ko daal par zéro waaw comme que affaire bi ci dee rek lay mujj ñu bàyyi ko fi ñoratuma daal affaire bi yu bëri daal waaw man naa la ko wax eh xoolal sama fii la nekk. ba ma évaluer affaire bi xam ni rek xoolal Ndiaye notre comédien mon ami voilà xëccoo milliard gratte-ciel oto dawal na oto bii deux cent millions lay jaar ne ne ne ne moom moom kii xëccoo fii jamante nañu xuloo nañu mais après ñu suul la ñaata nit ñoo fi bàyyi ay milliards dem foofu laa ko natte benn guddi yàlla def yooyu yëpp sama xel mi waa xam naa li ma laaj da ni man tey jii bu ma demoon àjjana ma daje fa ak samay wayjur lan laa leen wax ma ni est-ce que sama wayjur yooyu dinaa leen xàmmee ca àjjana foofu dinañ xàmmee nit ñi li nga xam ni kii moo doon sama papa kii moo doon sama yaay foofu mbégte ma fay nekk kenn du tal ay doom ak yooyu de <laughs> ah macha allah xanaa kontaan rek bëgg rek macha allah question yi laa hawla wala ndax bëgg naa sama doom mel ni man ci comédie moom déjà bëggul comédie moom leneen la bëgg nekk bu ko bëggoon nekk ma bàyyi ko après dinaa ko war ni ko wax dinaa ko wax ni lu difficile la déjà lu yomb amul mais mu bëgg ko bëggul def loolu moom li mu bëgg a def depuis mu nekk xale boo ko laajee mi ngi ci ba tey comme parfois damay defe ni li mu nekkoon xale dina changer mais ba léegi loolu la bëgg a nekk ma ma ma ma mais nag li mu bëgg a nekk nag moom. xaw naa diis xaw a diis koo xam ne nee naa ko pape parce que moom ay astronaute nee na la bëgg a nekk xaw ma lan man ko ci jaww ji nga bëgg a dem nag <laughs> man jaaxal na ma loolu nag njàng la laaj papi njàng la laaj ci que moom bu jisee ay comme fii ay Apollo ay nangam nii gars di dem ci ciel beeg ay affaire yooyu ay planètes yeeg affaire yooyu jox oh, seen casque yi kii fii yooyu yooyu bëgg na ko. waaw et puis c'est un footballeur maa ngi koy encadré ci loolu mais dama ne ko football mënul ànd ak ñàkk jàng boo xamul dara bëgg football dañ lay yàpp doo takk capitaine bi dama damaa bëgg ci nekk nga jiitu ci waaw damaa bëgg foo nga jiitu ca kanam wala boo jiituwul parce que bul xëccoo jiitu amal xam-xam ba ñëpp respecté la c'est le plus important nit lu mu ne da ci am xam-xam fa nga ne kenn du la yab am xam-xam doo tardé constant gëm yàlla wóolu ko di pratiquer diina ja nga nekk ah, ba ñu dugg ci lu sa yoon lu ñu waxale nga dugg ca maanu ku ko dëkkee sa àddina doo sonn de dina jeng nag parce que ku dul jengale amul mais doo àgg suuf waaw léeg-léeg mu tar ba sa nopp saxaar bay pete di saxaar mais da nga jékki rek yàlla indi ay ay ci sa kanam ne la lijjantikul sama waay nga lijjantikul yow maa lay lijjanti te doo am gàcce nga lijjanti ko yàlla dafa am ni nitam yu mel noonu xam ni kenn du gis seen gàcce yàlla dafa am nitam yoo xam ni kenn du gis seen gàcce macha allah ba ma xàmmee nga ni li ma mës a def nga xam ni accomplir naa ko te fier ci man ci def man ci def fierté ci laa dëkk dama ko tàmm mais kenn du ko xam amul publicité amul wane amul wax amul dara nekkal sama nijaay nekkal sama grand frère nekkal suma xarit nekkal suma lépp lu ma séq ak yow boo ko waxee ma bàyyi la na yom suma diggante ak yow parce que defuma ko man ndax dama bëgg mu siiw dama ko def na yom suma diggante mais bi gën a garaaw mooy man je refuse j'ai refusé d'apprendre man mi ngay gis ni je n'ai pas fait les bons jànguma alphabétisation lañ ma dugaloon jàngum wolof ma nekk ci ba ci yàgg di daw ay jàng ak ko yooyu yëfi booy yooyu affaire yooyu après je n'ai pas pu faire les bons damay làkk français bu jub xoj di jàng ay textes après la wutoon Silabère di kii ak lu foronte yu ndaw yooyu parce que sama papa armée française la nekkoon il parlait français couramment avec nous et tout bi ma nekk ñu ngi këru taxi ak yooyu mais man c'était pas évident li yàlla def nii moo tax ma ni ku nekk gëm comme ku yabu gëm yàlla toog ci li nga toog te xam ne yàlla rek kay dëgg fu mu nar fu mu fu fu nu fu nu fu nu sànni fu nu sànni xeer te mu bugg koo def jamaa daf koy def jamaa yàlla sunu borom bu ko neexoon nga jëmbët yow fenn gas wàqi suuf si def ci xeer yàlla sunu borom nga yeewu suba mu def mu def ko dugub moom la neex yëfam la bu ko neexee nga def ko dugub mu mu wowal ko koŋ nga wàqi fekk fa ay xeer man ni ma yàlla def nii mbiru yàlla la mosuma ko yaakaar parce que amoon na ñu ma jege lool sës ci man lool mosuñu xaar lool ci lii ci man mosuñu xaar ni dinaa jëndal sama bopp tubéy bay faj bay faj soxla yi nit te yàlla def na ko ci man macha allah kon alhamdulilah loolu rek ñafe naa c'était dur ñafe naa ba euh, théâtre biñ ma xeebe woon ma relevé am lu ma ci relevé ba ci di ci faj di ci faj beaucoup de choses beaucoup de choses macha allah moo tax. Euh, pas plus tard qu'hier dem naa ci manifestation wu Kaaw le grand comédien mon frère que je salue de passage ba ma jëlee parole loolu laa leen wax il n'existe pas un métier plus noble que le théâtre docteur yi dañuy faj yéen da ngeen di faj imaam yeeg kilifa yu baax yi dañuy juboole yéen da ngeen di juboole yàlla c'est le c'est le c'est le grand créateur ci parcelle yooyu mu dagg ci jox ñu ñuy créer kon yàlla ñun am na fu ñu joxe considération léegi nag boo ko ñàkkalee fayda théâtre nag ak am am ful la boo ko ñàkkalee fayda dalay ñàkkal fayda moom théâtre ni nga ko téye rek la lay téye moom boo ko téye mu téye la boo ko sàgganee mu sàggane la moom def ci moom théâtre moom fu am laam moom moom image bi nga ko jox rek image boobu la lay jox léegi nag bon léegi nag li ci des mooy voilà góorgóorlu rek ah parce que fépp na métti ah la vie est très ku ko wax ak ku ko waxul fépp la mettee sikkim fépp la lakkandoo mais maintenant nag da am ngor nag te bañ a bàyyi il faut pas lâcher li ma Mohamed gay di wax boroom Canada ni ma on lâche pas ma ne ko on lâchera jamais je lâche pas man je ne dois décevoir sama benn grand frère Badou Guèye bu ma bokkal ndey ak bàyyi il ma mu ne ma booy xam nga lan moo lay stressé mu ne ma ne ko lan la grand mu ne ma dangaa bañ gàcce construire une maison construire une maison ok je fait je fait je fait ok du loolu du kii kër am oto am fas am jabar am doom yooyu yàlla moo koy jox loolu yàlla ci ndogalu yàlla la nit am na xaalis amul doom xam nga loolu nit am na xaalis te amul kër nit am na xaalis te amul fas yooyu yu yàlla di jagleel doomi aadama nit am na xaalis te amul oto oto léeg nga gis ni di jël taxi am xaalis nga naan kii du amul oto mukk ñun ñu jël oto def ko foo xam ni dafa garaaw oto nécessité la oto amul quatre pneus muy accéléré di la yóbbu fa nga jëm taxi amul quatre pneus car rapide yi amuñu quatre pneus njaganjaay yi amuñu quatre pneus da nga ciy dugg rek mu yóbbu la quel que soit ki nga doon am nga am nga taxi bu la yóbbu nga ñibbi ci taxi nga bëgg a dugg yenn oto yi laay gis sax ku siiw di ko dawal Sénégal wala nga nga ne ko jëndal oto bi mu ne la weesu naa oto bi du dawal oto bi wala man force damaa war a am oto oto bu fekkee force da nga war a am oto ci ci moyen de déplacement nécessité la ok mais da nga war a am oto pour man am naa ñoo xam ne dama dama leen di gis dañuy jënd oto lan la ñuy doyee oto soxlawuñ ko dañuy jënd oto parce que nit ñi war nañ ma gis ma yor oto. wala tey je dis que ni euh, waaju baax tabax na kër lu tax waaju baax am kër man awuma kër parce que wërsëg yi dafa yam yamul man am na ñu ma njëkkoon théâtre li ma am ci théâtre yàlla jagleelu ko jagleelu leen ko la vie est ainsi faite man am na ñoo xam ne maa leen jiitu te fi mu toll ni toll nañ foo xam ni man ba may toll ni ñoom tolluñ ma foofu man théâtre ma rek am xaalis askanu lawbe laa boole ak làmb ji am ci 7000 francs bu nekk 3500 francs lañ ma fay askanu lawbe ak làmb ji la je dis c'est après laa xam lan mooy million après ca kanam sax mais loolu nag je le aussi à à quelqu'un ma waxaat ko je le dois à Youssou man sama relation Sanekh ak Youssou Ndour c'est très profond c'est très profond un gars que je un gars que billaahi fi ma toog nii bu ma yëkkati woon sama téléphone mu ne ma neex alors ça bu fekkee wax ji dafa jël deux minutes parce que moom du wax lu yàgg ci téléphone danaa la jaaral kër ga wala ñëwul bureau ba est-ce que xam nga man bu ma neexee woo Youssou Ndour ni ko cinq millions laa soxla daf may wax ni ñi ngi lay woo dans cinq minutes daf ma koy daf ma koy envoyé mais duma ko def lu ma bëgg daf ma koy defal billaahi wallaahi taalaay damay def séquence mu woo ma ni ma doo nit séquence bi nangam nangam danga nanga noonu wala wax njaga waxal saa neex nangam nangam nangam njaga wax ma ma rectifié mu ni ma mu ni ma mu ni ma saa neex dama ne ma ne ko ma ne ko grand ni nga bàyyee way nii doo fàtte mu ne ma ni nga mel ci théâtre laa mel ci way ku leen fëgg quatre heures du matin mu ne ma ni nga amee technique ci théâtre noonu laa amee technique ci way mu ne ma man Youssou Ndour nit dina ma dàq baat mais ëpp ma technique ci monde bii ci way gaw ko de ni nga mel ci théâtre laa mel ci way mu ne ma Cheikhou xaalis baax na ci boo ko liggéeyee bul ñàkk fayda mukk bul def fuñ la woore nga dem fa bul taxawaalu fais-toi rare bul lambar lambari day rey artiste gis nga waxam boobu duma jóg ci di ko wax te dama ci dëgg sama tàgg gis ko dafa dama dañ ma jékki-jékki ñu woo ma télé ba ni ma wuyul Youssou en 2011 le 11 avril 2011 parti mu ne ma bon télé bi mu ne ma dama la gisul ci sa yëf lii sa yëf la njaboot gi sa njaboot la dañoo am dama benn concept d'émission bu tudd yeewu leen dama bëgg jël baama mu lay defal mu defal la formation en météorologie ngay présenter météo parce que présentateur météo yi dañ leen di dañ leen di former rek mu jox waa ji waa ji di ñëw télé ba di ma former pendant un mois xaw ma deux may ñëw foofu mu naan ma nii parce que affaire bi da ngay naan set Louga Kaolack Dakar def nii après gaa yi teg affaire yi beeg yooyu mu may formé ci temps bi nangam nangam dina tam waa direction météorologie di ñu envoyé affaire yi Youssou Ndour moo ma defal loolu mu ne ma ma ne ko bon grand bàyyi ma essayer parce que damay voyager sama tournage mu ne ma essayer woo dara embauché leen ko kilifa nga ci dëkk bi jëlal sa kayitu embauchement nga dugal ko ci banque yi ñu jox la xaalis nga tabax kër loolu laa bëgg il m'a boosté encouragé ba ma am kër wallaahi c'est lui c'est lui il m'a jamais lâché Youssou Ndour sincèrement bokkuñu day bokkuñu bàyyi mais il a été toujours là pour moi et puis Ndiaga SSP pour production yi mu metti lool mais tamit il lâche pas Ndiaga il est toujours là booy say booy lañu da leen faalal nangam nangam dugg na fii un gars merveilleux que je maa ngi ubbi benn boo xam ne uniquement pour théâtre la pour dimbali ñi nga xam ni man dañ ma dimbali woon parce que y a yoo xam ni ils sont tellement talentueux. nekk ci banlieue bi nekk ay ay Caaroy ay Tëngéej ay feneen ak feneen à Thiès partout au Sénégal man damaa war a mën a dem en tant que ambassadeur ci théâtre teg leen loxo génn seen production chaîne bi nag du ni man dama koy def di ci génn de temps en temps peut-être mën naa bokk ci benn série génn ci seen beeg yooyu noonu mais c'est pour c'est pour les pour c'est pour les artistes comédiens du Sénégal seen chaîne la nañ ñëw def ci comédie def théâtre Sanekh production Sanekh TV Sanekh TV moomu ma ko chaîne artiste comédien sénégalais yi la na ci ñëpp abonné parce que lu dul luy yeete comédie nit ñi dinañu ree ba dagg ci loo xam ne duñ ko gis fenn fu dul Sanekh TV def ay série yoo xam ne yu extraordinaire dinañ def comédie dinañ def drame tragédie yëpp lañuy def te chaîne bi bu leen am dara lu ngeen ci xalaat parce que ay professionnels ñoo ko yor ni ñi ko yor sax nekkuñu fi dëkkuñu sax Sénégal ñi ko yor loolu rek ay seen liggéey loolu la ñu jàngi woon bitim réew ñoom ñoo yor chaîne boobu man sama yoon nekkul ci chaîne boobu seen chaîne la seen yëf la ku ma gis ni daal am nga talent tuuti bëgg suma métier bii ma nekk talfatal ay ni dinaa la teg loxo bu soobee yàlla. il me reste beaucoup de choses à prouver au Sénégal beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses parce que xam nga sama métier mooy loo gën a jëm mag di ci gën a am expérience métier bi di la gën a soxla métier bu amul retraite la retraite bi mooy nga wuy ji sunu borom yàlla na yeer mais juste que euh, parce que looy gën a gën mag di gën a am humilité di gën a pondéré di gën a am esprit d'ouverture di gën a dal di gën a xam li nga war a def ak li nga warul def man il me reste beaucoup de choses malgré du xale mais dese na ma lu bëri ci métier bi parce que métier bi jàngam du du du du am fu mu amul fu mu yem waaw jàngam amul fu mu yem beaucoup de choses moo tax ñi ci nekk nii defe ni plafonné nañu di quelque chose comme ça dañuy dañuy il se trompe il se trompe waaw il se trompe ñi ngi juum euh, attention attention waaw ah, parce que moom fa ngay demee ba euh, métier la boo xam ne fa ngay demee ba yëg sa bopp ci la lay mbasan ah, wan la ni xamoo dara parce que balaa nga ko doon xam tey jii man j'ai eu la chance de faire des plateaux de cinéma euh, interne ay cinéma yoo xam ni ay tubaab ba ko tourné quelque chose comme ça mais dafay xam ni musoo xam dara te da ngay ñëw expérience mais bon bien vrai mosuma daal parce que man plateau bu ma mos a yàcc macha allah je touche du bois après producteur bi tubaab bi woo nañ ko ni ko ndax kii dafa mos a jouer film mu expérience bi moo am nangam nangam loolu chance la mais tey euh, da ngay wàcc yenn plateau yoo xam ni dañuy formaté sa xel mi dangay xam ni yow mosoo xam dara ko bon il me reste beaucoup de choses. man sama relation ak Sadio Mané xamuma ko xamuma waaw mënuma ci wax dara je c'est un gars que je le vois. ci buy football parce que moom moo tax man may supporter Liverpool parce que man noonu laa mel Liverpool nekkul woon suma club moom moo tax may supporter Liverpool moom bëgg naa ko ci li muy def respecté naa ko ci bëgg gi mu bëgg Bambaly gi mu nekk waaw parce que moom li muy def ci ñaqam xam ne fa mu jógee di ko fa delloowaat je le respecte malgré on ne se connaît pas mais je le respecte. ñoom ñëpp sax d'ailleurs ñoom ñëpp d'ailleurs nga baal moom équipe nationale aw ma ku may seppi teg keneen je les respecte Aliou Cissé xamante nañu euh, Tony Silva c'est mon ami depuis très longtemps lui c'est mon ami El Hadj Diouf c'est ami ñoom dañ ma bëgg parce que équipe nationale bu ñu nekk ànd regroupement méridien man lañ daan jël ma dem defal leen ay sketch joué leen ñu décompressé et tout ça par le biais de Tony Silva parce que moom bu ñëwaan seen vacances Sénégal man ñun ñoo daan ànd quoi man rek pratiquement ak nijaayam yi ñoo daan xam man maa daan xam fi mu nekk bu daan ñibbi ma yóbbu ko ba aéroport après man ñibbi waat Thiès voilà Tony c'est mon ami quoi ak euh, euh, kii Faye am ni Moustapha Faye xamante nañu vraiment Pape Bouba Diop yàlla na ko yàlla xare àjjana joué naa Angleterre moom mu jugee tot mu jugee Tottenham euh, fekk ma fekk ma Londres indil ma saagu mayoo seet si ma may gars yi ay mayoom waaw d'ailleurs mayo boobu maa ngi moom sama grand frère laa ko jox jël xaalis ma ni ma yow laa seet si ak ak soxna tubaabam bii mu nekkal ah seet si ma seetaan sama prestation ñëwaat ci kulisi tàggu ma ni ma yow rek ma fi indi woon damay delluwaat Tottenham damay entraîné ci Pape Bouba Diop seqoon nañu loolu quoi il a pour moi voilà Tony Silva nice yoo xam ne lu gën a profond yoo xam ni famille rek moo la ko war a xamal maa moom partagé nañ ko quoi il venait à Thiès ñëw ci man dem benn bërëb tëdd fa nelaw ba doyal ma ñëw ñu toog waxtaan mu ni ma dama la bëggoon gis rek taal oto dem ñibbi voilà nii noonu laa respecté équipe bii nii nii nii nag xaw ma ci kenn man fréquenté wu ma ci kenn xaw ma ci kenn mais je les respecte big big big big respect man bu ma bëggee reetaan may may reetaan lu bëri ah Kouthia daf may reetaan loo am ni mignon daf may reetaan loo am ni mignon daf may reetaan loo euh, j'aime aussi Thiass booy cas léeg-léeg ma déglu ko mu dajji ma mais am ni mignon Kouthia daal laa xam ni ñoom mën nañ ma mën nañ parce que dañoo am ay techniques yu nekk ci ñoom yoo xam ni am ni dañ may fréquenté dafa am loo xam ne dama ne lii nan la nit osé di ko wax wala di ko def man looloo may étonné ci am ni je m'éclate de rire Kouthia dafa am benn technique bu nekk ci moom boo xam ni lu sew loo xam ni il faut nga professionnel pour xam ko par ni muy def kanam gi par ni muy jëlee texte bu ko rëcc ñoom la koy jëlaate il est technique Kouthia il est très technique man booy yi yenn ñi yooloo may rëcc ci ñoom technicité te il faut être pour le loolu nag il faut nga xam ko pour man ko kii mais damay reetaan damay reetaan damay si damay damay damay damay reetaan damay reetaan mais sama sama préoccupation yu bëri nag formule 1 la seetaan tennis ak football ak football waaye bëriwul lu may seetaan théâtre te damay théâtre déedéet bëriwul bëriwul moo tax léeg-léeg ma dajeek artiste comédien mu defe ni dama ko xamul mais dama ko dama ko bañ a nuyu fekk dama ko dul xam ci kii parce que bu fa bëriwul lu may seetaan théâtre trop trop trop trop parce que dama ne bu ma jógee ci monde théâtre bi toogaat ci théâtre bi toogaat ci théâtre bi dafay kii te man bu ma stressé trop bu ma seetaanee football rek damay cool bu ma seetaanee tennis damay cool bu ma seetaanee formule 1 parce que dama bëgg oto damay cool damay kul wala mu dugg ci benn sit bu ñuy jaayee ay boutique dàll di wane dàll naa ki yan mooy faux yan mooy vrai affaire yooyu parce que yow j'ai une chambre boo xam ne uniquement ay daal la fa nekk voilà loolu la daal ba mu bëgg daal bëgg oto noonu la ñuy defaree oto yi damay dem discovery yi seetaan affaire yooyu bien vrai am na série yoo xam ne dama leen di seetaan dama leen di seetaan beaucoup voilà mais bëriwul li may seetaan tayaat question boobu dinaa ci sawar ban message lay lancé pour jeunesse sénégalaise ku nekk am nga sa diine lakum diinukum moo liya diin ku nekk am nga sa diine ku nekk diine ba nga nekk wax la la ne tooñ baaxul jëlalu al jël alalu jàmbur baaxul fen baaxul sos baaxul diine yépp a ko wax diine yépp benn bugg ci loolu roy leen ci loolu benn ñaar gëm leen seen bopp yéen parce que gis nga àdduna bi ku ci gëmul sa bopp gëm li nga doon fexe jàngi métier am loo ci xam mën ci am dara da ngay perte gouvernement yi dimbale teew ko ñu kenn parce que àdduna moom metti partout dans le monde nag àdduna moo metti nañu am xam-xam am lu ñu jàngi am lu ñu mënal sunu bopp ba ëllëg ñu mën a yor sunu njaboot njaboot kenn du ko yor ci agression yaay kenn du ko yor damay agressé parce que sama yaay laa bëgg dimbali du raison sama yaay moo feebar il faut que ma agressé ko pour fay ko pour il faut que ma agressé pour fay ko du raison il faut ma sàcc alalu jàmbur pour dundal suñu waa kër du raison il faut ma liggéey pour dundal suñu waa kër loolooy waxi gor as gor bu fekkee as gor nga ku la ni jaam nga nga nga nga mer boo dee as gor nañ la fekk ci yëfi gor nañ leen ànd liggéey bokk ndey bokk bàyyi te xam ni réew mi sunu réew la te ku neef la nga ne nga bañ ko xeeb jërëjëf